sant yàlla bu baax a baax sant ko ci num ñu may ñu fekkewaat nawet gi sant ko tamit ci num ñu mayee taw wàcc ci réew mi te bari fi e, di ko ñaan mu doon ndoxum jàmm ndox gu barke ndox moo xam ne lépp li nga xamante ne dina fi meñ ñi ciy sonn fekkee ko ba jëriñoo ko te mu doon jëriñu Sénégal di sant yàlla tamit gannaaw bu ñu booleegi askan gu mel na askanu Sénégal ñu jiite ko ndax laata muy taw am na nuñ ko doon waajale te nuñ ko doon waajale mooy woo waa senegaal yépp pour ñu booloo setal suñu réew liñ ci namm mooy ren gi ANACIM moom mi nga xamante ne moo ñuy wax ndax taw dina bëri walla déet daf ñoo teel a wax ne ren taw dina bëri te ku ne taw sénégal wax tamit inondation loolu taxoon ñu waxtaan ak sénégalais ne leen pour ñu jóg ci njiitalu ministre de l'hydraulique et de l'assainissement docteur cheikh tidiane dieye ànd ci gouvernement bi yépp ñu doon gaawantu ngir nettoyer canaux yi nga xamante ne ndox mi bu ñëwee foofu lay jaar sénégalais yi nag wone ci njàmbaarte bu mag a mag a mag mag xëy na nuñ ko waajal waajal waajal li xew ren gii nettoyer ak curé kanu rek doyu ci kon am ño xamantene xamante dinañ ci loru ñi ci loru kon ñu ngi di massaw bu baax laata may joggé abuja bi nga xamantene ma ngi doga wacc ci la premier ministre Ousmane Sonko joko ci ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dieye laaj leen situation fu mu tollu laajte données yi nga xamante ne taw mi mu wàcc naka la toll ak yàqu-yàqu yi am wala inondation yi mbënn mi fan lañ ko gis pour lépp loo xamante ne war nañ ci war nañ ko baral ci ay moto pompe ak leneen li nga xamante ne mën na gaaw a wallu askan wi ñu gaaw ci taxaw te xam na ne sax ñu ngi ci ndax docteur Cheikh Tidiane jay mi bàyyi tukkeem delloo fekk ji waa Kaolack nga xamante ne foofu lañ njëkk a signalé ndox mu bari ci loolu la taxaw te mu ngi jàppalanteeg mairie bu baax a baax pour ñi nga xamante ne noonu la ñu leen di dimbale gaaw pomp ndox mi te noonu loolu mooy doon suñu taxawa fépp ci réew mi tamit. Sénégal dafa am taarix ci diplomatie am na ñoo xamante ne ci diplomatie dañu ci dox ay jéego yu am solo ay grand diplomate yi tax Sénégal nu muy doon réew mu màggul ci wàllu yaatuwaay du réew moo réew moo xamante ne dafa am koom-koom. ay diplomatam ñoo ko am tur bi nga xamante ne moom lañu koy bàkkee ba ñun loolu la nekk di wéyal ni ba tax na Sénégal fu mu taxaw ci kuréelu àdduna yi ñu respecté ko kon am na tànk yoo xamante ne waruñu ko wàcc muy tànk woote jàmm tànk continuer doon seetu goo xamante ne ku xool ci ñun xam démocratie fii la fekk baax xam ne askanu Sénégal màgg na màggaay goo xam ne saa yu taxawee jotee mu war a taxaw nuñ ko war a nawee taxaw na ko ba mu mat sëkk kon tànk yooyu lañ demee tamit ci CEDEAO ndax laata some bi di jot li nga xamante ne moom la sama naatango yi euh, président bokk ñu ma bokkal CEDEAO sant tey mooy dem doxe tànk jàmm fekkoon nañ ñu taxaw ci ba pare dem seeti waa Mali dem seeti waa Burkina seeti ñeneen ñi nga xamante ne tamit du ci ñetti réew yooyu rek tànk yi tamit tànk saafonte la woon tànk gën a rataxal diggante réew yooyu ak Sénégal waaye tànk tamitu wax ak dox jàmm ci liy jëmal CEDEAO kanam ak ci liy gën a boole ñi nga xamante ni ñoo bokk CEDEAO alhamdulilah mel na ni ñi sama naataangoo yi ci CEDEAO dégg nañu wax jooju ndax boo xoolee résolution bi tey wax nañu ne lépp luy jéego pour dem waxtaane ji suñu xarit yooyu suñu freer yooyu muy waa Mali waa Burkina wala waa Niger dinañ ko taxaw bu baax a baax te man mii lañ ci jiital sant ma ne waxtaan jooju naa ci def lépp li ma mën pour indiwaat leen duñu wax ne nag résultat bi nga xamante ne moom la ñuy yaakaar dañ ko am par force waaye dafa am lu ñu war def lu ñuy war mooy taxaw dem seeti ji nga xamante ne féewaloo am na réeroo am na xëy na sax meroo am na pour ñu waxtaan ci waxtaan ak ñoom ñu am bu ñu bokkee kuréel tëggaat ba xool ndax dinañ mën a toogaat bokkaat même anam kuréel bi nga xamante ne mooy CEDEAO kon góor góor lu ngi ci côté bi te ñu ngi xaar ci beneen côté bi tamit góor lu nekk fa ba génn bañ a am ndax liy dooleel CEDEAO mooy ñëpp toog ci CEDEAO ñu tëggaat CEDEAO nu mu war a taxawee pour gën ko dooleel ci Afrique ak ci biir àdduna bi